salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki Sénégal salaamaaleykum wa rahmatullahi mbokki àdduna tey jii fa tabaarakallaa ñoo ngi ci li nga xam ne tey mooy King Fass Palace ci conférence bi nga xam ne kay Thierno Abdourahmane Bari moo ko woote di waajal li nga xam ne muy avant première bi nga xam ne tey mooy ziyaari bokkal bi tey jii mbokki Sénégal li ma ci gën a neex ci jotaay bi mooy dañu jàkkaarloo ki nga xam ni tey macha allah tey bés la invité le parrain la ci bés bi muy kan Amadou Alpha Baranokra su ma nee Amadou Alpha Barana Kora kooku mooy kan mooy le marabout digne le marabout intègre le marabout de la diaspora le marabout expérimenté généreux modeste humble ki nga xam ni tey fa tabaarakalla adduna wërngal këmm xam nan ko kon tey mbokki Sénégal tungu ne du teew ñi nataal seentu asamaan jarul di booxante ñoo ngi ànd ak sunu waaye kon ñu doxandu tuuti teen tàllal ko sunu micro rek kooku mooy Amadou Alpha Barona Kora salaamaaleykum comme nu leen ko waxee rek nous avons l'honneur et le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir le marabout le marabout de la diaspora le marabout intègre expérimenté le marabout qui est dans nos cœurs kon salaamaaleykum mbokki Sénégal sama papa maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay nga ànd ak kilifa gu mat kilifa kilifa goo xam ne kenn dootu ko natable ci mim réew kooku mooy Alfadu ah, amadu Alpha Bara Ndokra su ma nee Amadou Alpha Bara Ndokra tungu ne du teew ñuy nataal te séentu asamaan jarul di booxante kooku mooy kan kooku géej la xam-xamam kenn dootu ko natable ci mim réew kon yow ñu lay wax di nga dal ak jàmm di lox yow yaay kan ak lan nga ci sëñ bi. waaleykum euh, euh, salaam wa rahmatullahi baax. Euh, man maa ngi tudd Ousmane Dao man mi bàyyee ko Mali mbokk seexal islaam la ñun seexal islam lañ koy wax ak seexal rahma dégg nga mooy boroom yërëmande bi borom njëriñ bi mooy seex Amadou Alpha Bara Nokara comme wax nga ko bu jeex euh, teen asamaan jarul buuxante kon wax dëgg yàlla moom ni ko waxee ak noonu la amee waxoo ci moom jayoo ko li nga xam ci moom ak li nekk ci moom loolu nga wax rek tettal nga joxe. waaye wax dëgg yàlla kii kilifa la boo xamante ne ñun waa Mali ñëpp suñu amoon ci ñoom ñaar doy na mun nañu wax doy na bu mu amoon ci moom ñaar ndax lu nekk yàlla bind na ko ñaar moo tax ma tudd ñaar bi ndax kenn moom te yàlla rek la baax loolu moo tax ma tudd la su ma la suñu amee ñaareel ci moom rek ñun waa Mali moom doyal nañu sekk wuute wuute leneen wax dëgg yàlla ku tabe la nit ku jullite la mbirum jullite rek moo ko yëkka yëkkati mu ñëw fii du mburu wuute leneen du pour siiw mburu leneen laa ilaha illallah bu ñu tudd fii léegi moo tax moom mu ñëw fii moo tax ñun tam ñu ànd mu ànd ay délégation am lu mu financé pour ñëw fii yàlla rek moo xam nu mu toll waaye jalal na ko laa ilaha illallah bi jalal na ko Cheikh Abdourahmane Boggal jalal na ko ko moo ko moo ko woo mu teral ko wax dëgg yàlla ah ñun tam rëccu wuñu lu ñuy àndee ak moom moom de comme li ma la wax rek te yow am na loo ci xam ci moom yow war na ko ne da ko bëgg ci yàlla tax te way nga ci yàlla tax te way nga ci xamoo ko waaye nga ci gisoo ko waaye nga wax ci defu la dara mais mbëggeel bi nga bëggee ci yàlla tax loolu mbëggeel boobu doy na pay yàlla doy na tamit pay parce que mbëggeel bi nga ko ne yàlla tax rek doy na yëpp ëmb na yëpp wax dëgg yàlla jërëjëf waaye mooy Cheikh Amadou Alpha Bara noo xam ne ñun maa Malick Mamel waa Cheikh al Islam lañ koy wax ak Cheikh al Rahma ndax moom mooy yàlla bind moom la ñu gis mu am numéro boo xamante ni doole kese moo ko moom mooy lan ku soxla moom moom kese mooy woote mu jot ci numéro boobu waaye borom alal doo ci woon borom nguur du ko woo mu jot ko boroom darja du ko woo ba jot ci numéro boobu numéro boobu daf ko def rek ngir yàlla ak képp ku ko soxla rek na woote foofu numéro boobu amul guddi amul bëccëg amul ça c'est interdit amul plus rouge amul dara mu vert rek la am toujours boo ko woowee jot ko lépp loo ko wax rek mu def ci lu mu mën même su la fajul si soxla yëpp tamit xam naa dina yàgg dox ti fekkente ne ñaanoo kenn ci laajoo kenn sa soxla te sa xool du métti mukk ci àddina loolu limar boobu moom am na ko loolu moo tax ñu koy tudd seexal rahma mooy borom yërëmande bi seex yërëmande donc loolu kenn ku ko def rek mun ngeen wax ñun danañ ko wax ndax yow da ngay xàccoo ak euh, se euh, euh, ndax da ngay xàccoo ak Umar bun Abdul Aziz ndax Umar bun Abdul Aziz moom moo doon nekk ci nguuram ñëpp suur ñëpp suur koo laaj mu ne am na ba des mu ne léegi daal ngenaaw yi na ngeen uuti ñam yi dugum yi ceeb yi ngeen yóbbu ko ci biir doj yi xeer yi ngeen sànni ko mag ne jamono Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz rek picc yi sax suur nañu ba ñëpp xam suur nañu kon moom tamit noonu la melee ci Mali macha allah mooy numéro boobu nee na ku ko soxla daal woo ko rek ki ko woowee joto ko baa doole kese wala ku moo koy woo jot. mooy numéro bi. ma dóor macha allah yow kay xam nga ko kon. xam naa ko kii dama koy woowee la solution. mais digganteem ak fa tabarakallah cheikh al islam. parce que ku ni cheikh al islam Amadou Alpha Baranokra cheikh al islam xel mi dem ci maam Baye Niass maanaam dig dafa mel na diggante caag rek soow daal loolu bëgg naa nga wax nu ci tuuti. léegi lu tax ñu ko cheikh al islam am na lu ko yàlla may mooy cheikh Baye Niass. moom nekkal seexal islam ndax moom teewal na Égypte fu ñuy wax jaamiatul azhar teewal na fa jullit yëpp moo tax ñu koy tudde seexal islam côté boobu moom la jëm ndax jullit nit munul am loo xamante ni lu toll nu jullit ñu teebal la foo xamante ni nga teebal foofu addina yëpp nga ne lépp luñ ci laaj ci mbirum islam man mii ci Afrique man jël naa ko te dinaa ko tontal Afrique yi ba mu mat sekk te mooy moo tax foofu lañ ko tuddee seexal islam mooy seex Ibrahima Niass ñun nag ñu ngi koy teddal seexal islam mooy boolo mbokk ko yëpp mooy fu mu dëgg laa ilaha illallah rek mu dem teewu ji fa moo tax ñun ñu tuddee ko seexal islaam seexal rahma mooy mooy numéro bi ma la waxee noonu moo tax ñu tuddee ko ko loolu mooy li ma ci xam incha allah. léegi digganteem ak Thierno Abdourahmane Bari xam naa ne kóllëre moo ko lal te kóllëre la tax mal gis nañu ci publicité bi ñoom ñaar seen ñaari photo la dendandoo ci biir publicité bi ma bëgg rek nga laal wax nu tuute ci diggante ma Thierno Abdourahmane ndax xam naa ni bés bi lu mu yaatu yaatu moom doon na kilifa goo xam ne tey topp na ci sëriñ bi ndax tey publicité bi moom ak sëñ bi rek la ñu wane ñoom ñaar moom seetaan naa ko ci yeneen télé yi ma gis ni daal kon am na ci cër kon nga wax nu dernier moom ci diggante ma Thierno Abdourahmane Bari macha allah eh, léegi dinaa ndax lu tax mu jot seen abdullah ah, abdourahmanu bari mooy ceerno hamdu rabbi waan moo def seen diggante moo jëkk xamante ak cheikh al islam yi mooy cheikh amad ah, amad baranokara mu wax ko ne mu gis ñu coofeel yoo xamante mu gis ci moom ay mbir yoo xamante nii neex na ko mu sopp ko lool nee na bu mu ko gisee nag ak mu tey loolu mooy moo tax moom xelam dem ci ceerno abdourahman bari bu boggal mooy ceerno hamdu rabbi waan mu ne ne comme gisoon naa ak kii tamit am na foo xamante ni yàlla moo leen boole ndax nit yu baax yi yàllaa leen boole lu ñu boole seen bopp de yàllaa leen boole lu baax loo gis rek yàllaa koy boole lu taxe ñoom ñaari fexee boole déedéet waaye nag sababu bi il faut yàlla lu ñu bind yàlla kese moom mun a dem ti amul sababu waaye ñun lépp yàlla bind encore loo ciy def rek il faut sababu dokke ci waaye sababu xamante bi mooy loolu Cerno Abdourahmane tamit mu gis ko mu wax ci moom wax yoo xamante ni lu lu daw yaram la gis na ko avant xam na ko avant mu gis ko mooy Thierno Abdourahmane bari mu boggal nee na kii de jëmm bi ma gis nii man gis naa ko man xam naa ko avant ma gis ko xam naa ko avant ma gis ko ndax nit ki mun nga ko xam avant nga gis ko waaye doo ko mën a gis avant nga xam ko waaye nee na gis xam naa ko avant ma gis ko waaye bi ma ko gisee tamit ni nga ko gisee ni ma ko xamee noonu laa ko gisee tamit ci jëmm ji waaye man tam jàpp naa ko sama àdduna ak sama àllaaxira mun naa ànd daal mbagg ak mbagg fu mu dem ma ànd ak moom fa ma ñëw mu fekk ko fa te man tam fu ma dem ma woo ko mu fekk si ma ndax loolu sama ndam la te ngir yàlla ak jëmm yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ngir laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah loolu moo leen boole daal. jërëjëf waaye li ma si jaaxal moom li ma naan dafa bëggul luy siiw bëggul luy siiw. te tey gis nañ ni tey man bëggoon naa benn kàddoo mu yëkkati ko rek wax ko ci bés bi mais li ma si jaaxal moom bëggul luy siiw bëggul caméra bëggul la loolu lan moo ci sa xalaat su fekkee mënoon benn kàddu ci moom. koo xamante ni kuy bugg yàlla kuy def ci yàlla tax siiw nga ba pare ndax ku siiw ci yàlla siiw nga ku siiw ba toll ci yàlla siiw nga kon mënul bañ siiw ndax kuy def lu baax bëgg nga siiw waaye am bëggoo ku lay jey ndax loo def lu baax dina am lu des yàlla kese mooy du desal kenn moo tax nekk am na loo xamante ni boo ko waxee rek dafay mel ni am na bëgg nga siiw ndax da ngay wax loo xamante ni xëy na doo fay ëgg moo tax moom bëggul wax lu muy def dafay wax rek boole ko ak noppi waaye nag comme li nga wax nii mun nañ ko ñaan mais donte déggulu olof mun na wax ka dama ma jottaliku ko li ma wax ma wax ko mun nañ ko ñaanu boobu comme mu sànni si kàddu bi ndax bu ma ñëwee ci mbooloo tamit am na loo xam ne bu doon xam nee nañu boo ñëwee ci mbooloo nga noppi rek nekk nga koo xamante ni tabewoo ndax borom xam-xam sa ñëwee boo waxul rek dafa mel ni xañ na nit ñi xéewal daal dafa mel ni koo xamante ni ku nay la wane nga ak nay ndax boo waxee njëriñ la waaye soo noppee nag kon am na loo xamante ni dasal nga nit ñi kon loolu il faut moom mu wax mu sànni ci ak lu mu neew neew wala lu mu tuuti tuuti lu mu gàtt gàtt dina ci wax dara incha allah rabi dinaa ko bonsoir kon di jéggalu rek parce que tey fa tabarakallah xëy na tey kilifa tamit jotaayam nii la Amadou Alpha Baranokura Cheikh al Islam le marabout intègre le marabout de la diaspora l'homme integre expérimenté nous avons l'honneur et le grand plaisir d'être là mais on vous a vu aujourd'hui dans cette publicité avec Kerno Abdurrahman Bari, quelle, quelle est votre relation donc euh, ede ñalawma mawɗo ñalawma ceerno abdourahmani bari mo ɓoggal nena ngi fi bisu bu rëy bisu boo xamante ni bu rëy bu rëy bu sévère mooy bisu ceerno abdourahmani o kanko noddi en noddaango fii allah e nulaaɗo muɗum noddaango diina e tawaangal meeɗen neysuuji meeɗen afrique woote mbi nag woote islam kese kese la du leneen leneen raɓɓude ɗo ɗum woote woote mbokko jullit ko woote ɗo wiyte no tilsani alsilami yo nooto nene nag waawi warna julliti kune buñu la woowee nga wuytirol yalaa donc o noddago makko ngo garɗen notade ɗo hannde eɗen beltani allah eɗen beltaniɓe fof nenañogo en calmini modibaɓe sénégal mawɓe fof seyhuɓe ɓe e waliyaɓe ɓe ɓen fof ɓe calminiɓe e, e gaɗaniɓe duwawu eɗen ñaaguiɓe duwawu e laamu ngu e population sénégal ɓe fof eɗen duwanoɓe eɗen mbiyamo e allah subahanahu wa holluɗen hide hitande e o ñalawma ɗo yo hollu en kadi hitande wonde e ñalawma garowo e allah naɓu o golle yaade yeeso kanko waɗɗo noddago ngo yo allah hokkuma cellal e jumbalako kala ƴettuɗo e koyngal mum wari ɗo gonduɗo e saɗede yo allah huncan ɗum e dardi allah kala garɗo hewtiri ɗo fi allah gonduɗo e moƴƴere yo allah ɓeydan ɗum moƴƴere kala ganduɗo e saɗede e ñaw e yo allah hoynan joomum donc mi dardi allah subhanahu wa ta'ala yo allah faabo en faabo julɓe kala allah allah daɓo yeeso yo allah accu en ɗam ah, mi salmini sonnami jami jamo subhanaka allahumma wa tahiyatun fiha salamun wa akhiru dawahum an alhamdulillahi rabbil alamin Sénégal comme ni ñu ko waxoon rek macha tey jii ñoo ngi ci li nga xam ne tey fa tabaarakala ba léegi yéen a ngi topp actualité ci biir King Fahd Palace bi nga xam ni tey macha allah Thierno Abdourahmane Bari mooy conférence bi muy waajal waajal li nga xam ne tey mooy gàmmu bokkal bi waaye nag waxoon man leen. ci biir conférence bi dafa am koo xam ne càppaacoo lii la fi kooku mooy Amadou Alpha Bara Nokra Cheikh al Islam le marabout de la diaspora tey à côté d'un grand homme yaa une grande dame Amadou Alpha lu mu toll ci mim réew tey jii jàmbaaru l'islam bii di di soxna tey Mariama Dia mi nga xam ne tey fa tabarakallah mooy présidente li nga xam ne tey mooy association bi nga xam ni tey luwal alluwal a gaawal tey jii fa tabarakallah moom dina ci ñëw kon soxna Mariam ñoo ngi la jox sa wàccuwaay bu baax tey jii ngeen ñëw ci King Fahd Palace ban yëg-yëg am ànd ak ki nga xam ne tey moo di Amadou Alpha Bara Ndongo asalaamaaleykum am naa yëg-yëg bu mag am kontante bu mag tey ñoo fii ci King Fahd Palace fekk sunu sëriñ sunu xalifa sunu lépp muy Thierno Abdourahmane Bari Boggal ànd ak sunu sëriñ Thierno Amadou Cissé joge ba Mali ñëw teewee bis bi tey jii defuñu lu dul kontaan ànd ak sama doomu ndey sama xarit Aïssa Doucouré mi nga xam ne moo waral mbaboon mi yëpp moom mii tey jii ginnaaw yàlla tey jii su ma am fa cër bi tey ginnaaw yàlla moom Aïssatou Touré mii ma toogal jàkkaarloog moom kon nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla may ñu commencé ci bisimilahi rahmaani rahim yàggale ci alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf soxna si li ma gën a neex ci li ngay wax dëgg la danga nga ànd ak lantinoor ànd darmanko man dama ko naan fa tabaarakala kii lépp alpha lu muy lekk sax fa tabaarakala moom moo koy jox waaye tey da nga jiite association bi tey ji nekk tey jàmbaaru lislaam nekk tey ci maanaam ci kanamu jigéen ñi nekk seen seen seen seen seen jëwrin tey ji loolu ban yëg-yëg la ak seen association bi lan la tudd yëg-yëg bu mag la association bi mu tudd Fedde Fulbe Sénégal Mali Bamako Dakar euh, boo demee Mali nag ñu koy woowee alluwal luwal gaawal lépp rek benn la sotti ceeg def ci la rek yëg-yëg bi mooy jiital nañ ma faqastaluñ ma groupe fedde bi fedde fedde ba Sénégal ko macha allah ñu ngi liggéey liggéey bu baax di mujj di liggéey lu euh, lu mucc ayib di ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla jàppale nag dañoo door léegi la ñu door ñu ngi ñaan nag ngeen sànni ñu ñaan fedde bi dem ba adduna bi yëpp yëg ci seen bopp. waa soxna si. dafa am benn woy bu woo doon dégg fan yi woy boobu bi nga ko déggee ci Amadou Alpha lum la def ak tey yow kat boobu tey lan ngeen lan lan lan ngeen di xaar ci moom. waaw woy boobu su ma ko déggee du ma jaaxal ndax Thierno Amadou li mu def ci àdduna waxuma la rek ci Sénégal ma li mu def ci àdduna dafa rëy kon ñun bu ñu déggee woy woowu ñi mu xamul la leen di jaaxal waaye ñi ñu xam loolu du ñu jaaxal waaw kat boobu nag ñu koy ñaanal fu mu ne bu dee rek benn la amoon xal na yaakaar ne téeméer a ci kanamam di ñëw yàlla may na ko loo xam ne ku mu ñaana rek ci kanam rek nga jëm sant ci yàlla. woykat boobu tey jii moo la tendre micro moo nekk nii taxaw sa wet macha allah di faali ñaa tey tendre le micro nekk ci sunu people TV tey fa la tey looy dernier moo rek looy tàggatoo tey tey di ko ñaanal Sénégal di ko ñaanal Amadou tamit. waa di tàggoo rek ni Sénégal yëpp lay wax doomu pël fu mu a nekk Sénégal. adduna bi yëpp laay wax ñëpp nañu ñëw seet si Thierno Amadou Cissé ñu xam ne yàlla moo ñu ko indil yàlla moo ñu ko wàcceel ñun Sénégal nag am nañu lu rëy ndax Sénégal mun naa ne lépp lu baax mun naa ne boo seet rek fi nga koy fekk ci Sénégal kon nag dañuy ñaan yàlla rek yàlla nañu yàlla jàppale waykat bi nag maa koy ñaanal bu baax a baax di kontaan ci moom nañu dem ba ci kanam dina xam incha allah waykat bi de daf la bugoon sargal sax mi nii taxaw sa mais kontaan nañu bu baax macha allah yal na yàlla defal waa soxna Mariamam tey jii yaa ngi nii nekk alpura tey soo doon tënkal li nga diir bu gàtt rek loolu loolu loolu koy tënkalee gannaaw tey fa tabaarakal li naan noote koo bandum nitu ki mbokkam waaw mbimi tan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu caggal yettude allah amin jogii weltare no feewi no feewi hannde e on ñalawma hannde woni ñalawma ceerno am uh, abdourahmane bari boggal mi ƴefti fof teddinira ceerno men ceerno amadou sisé amin belti ha ɗon tan wawi senegal mali bamako dakar aduna fof tan yen daron darde ganden hannde yonti ceerno amadou sisé ko enen jeeyi ceerno amadou sisé ko enen jeeyi hay goto jeeya ko enen jeeyi nden noon tinnoɗen tinnoɗen nangganenmo ha moƴƴa kala nangganɗomo so allah jaaɓi nimsata jërëjëf kontaan nañu bu baax soxna su ñoo ngi la jox sa wàccuwaay di la laaj tamit bés bi ban yëg-yëg nga ci am nga ànd ak jàmbaar ji jigéen ji di sa doom rey soxna Mariam ji ak sa kilifa Amadou Alpha Baranokra asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal maa ngi nuyu waa salle bi yëpp ñu fi nekk di am ab yëg-yëg rek ci kontante bu wér a wér dugg bu ñu dugg si di dégg baatu laa ilaaha illallaah bi rek sedd na xol ñu ci sant bu baax a baax suñu sëriñ Amadou nu Cissé ak Thierno Abdourahmane Bari Boggal ak di ci gërëm suñu papa Amdi Wan lii yëpp tey moom moo ko waral mu ci invité suñu sëriñ bu mag ñu naan ko Amadou Thierno Cissé Mali fête des Fulbe Sénégal Bamako moom mu daal di ci taxawaay taxawaay bu rëy bu mel nii mu jaral ko mu jóge Mali ba Sénégal ñëw toog di fekkee bés bi tey ñu ngi koy ñaanal yàlla yal na ko yàlla yokk yal na ko yàlla sàmm sàmmal ñu képp ku fi nekk ci salle bi rek ñu yàgg ko fekkee di ko feete ba mbir mi dem ba biir Bamako incha allah loolu la ñu bëgg te yal nañu yàlla defal loolu waaw. jërëjëf Asou di gërëm sama doomu ndey muy Marème ja mu nangul ma loo xamante ne ci téléphone rek laa ko wax mu ne ma loo bëgg ay Aïcha rek bëgg naa ko kon tey lii yëpp Marème ja moom moo ko waral ak délégation bi yëpp ñu topp tey jii yëpp tey moom mii moo ko waral ma koy ñaanal yal na jàmmam yàgg ma kontaan ci moom loolu di la gërëm yow mii tamit macha allah law la cet ba mu la ko waxee tegoo ci baat sax nga ne ma lépp lu sëriñ bi bëgg rek bëgg naa ko waaye fu sëriñ bi taxaw dama fay taxaw ba senegal yëpp xam ne waa Mali ñëw nañu fi kon maa ngi lay sant bu baax di la gërëm fu ngeen bëgg seen télé beeg rajo bi àgg yal na ko ko yàlla àggale ci barke Seydina Mohamed ak ci barke sëriñ bu tedd bi nga xamante ne moo waral bés bi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax ah, aw ma dara nag li may wax lu dul kontaan rek naa def kontaan rek parce que fu ñu lay woowee yàlla nee na yonent bi nee na defe naa ne boo ko déggee ay nalaw boo war nga koo bàyyi te xam mooy dëgg Sénégal ba léegi yooyu nag ñuy topp biir King Fahd Palace tey wax naa leen ma ni leen foo gisee jàmbaaru l'islam bu góore gis nga ko sa wet ga ñu jàkkaarlu ki nga xam ne tey mooy Badiane Maguette ànd ak ci délégation ki nga xam ne mooy Amadou Alpha Bara Nokra Cheikh al Islam Amadou Alpha Bara Nokra borom Bamako mu jaral ko mu fay ay millions fay ay avion fay ay hébergement am fii ci Almadi ñëw pour fekk bés bi muy Thierno Abdourahmane Bari soxna Maguette ñoo ngi asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa suñu ñëw King Fahd tey yàlla ak suñu waajur Ceerno muy nitu diine muy nitu yàlla muy nitu lislaam ñuy topp ay ndigalam nag di topp ay di bàyyi ay tereem te xam ne yàlla moo ñu ko wàcceel boole ñoog moom muy xuddu sanaan ginnaaw yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diine la nekk ci lislaam la nekk ci yor njaboot la nekk loolu mooy suñu tànk tey bu lool passé mëmma Gueye monsieur le jaar jaaroy ko di doom ci Thierno di soppe ci Thierno Thierno bëggal ko boppam Mamadou Gueye jël Thierno def ko baay baayoo ko doy loo ko mu di ko ñaanal kon Thierno dañuy ñaan yàlla yàlla nañ ko bàyyil ak ñun mu gudd fan lool lool te wér lool di ñaanal monsieur le maire wér ak tal ak fekke ñoo ngi ñaan nag Thierno mu dolli ñaan ci suñu monsieur mu yokkal ñu ay ñaan ci suñu monsieur ba fa ñu bëgg a jëm ak moom ëllëg ñu egg fa ak moom ñu fas yéene ko gunge dem ak moom ba palais de la république. loolu ñu ngi koy sàkkuwaat di ko ñaan ci Thierno te ñaan yi ñëw na sax waaye cer Thierno ñoo ngi ñaan mu dolli waatal ñu suñu monsieur le maire mu dolli waatal soxna Aysa suñu doom. mu dolli leen ay ñaan ñun ñu ci moom toujours ñu ngi ci ginnaawam toujours moom Thierno ndax Thierno ku xam yàlla xam yoo yonent bi rek bi yeboo rek nga teg ci Thierno ndax Thierno ci nitu yàlla lañ ko xame ci diine l'islam lañ ko xam surtout suñu tarixa Cheikh Ahmed tiijaan kon suñu ñëw tey diine moo ñu indi ak lislaam ak topp suñu waajur no ak di ñaan ci suñu boroom mu mayal ñu ko wér mayal ñu ko gudd fan mayal ñu ko mujj gu baax aaral ñu ko laqal ñu ko fa yàq eggul te suñu monsieur le maire Mamadou Guèye ñoo ngi xamal Thierno li lum ko ñaanal rek ñu ne amin mu dolliwaat ko ay ñaan ñun suñu tànk tey yëpp lu ñu gën indi lool la ndax ñu ngi taxaw pour suñu maire ñu gunge ko fas yéene ko gunge ci gouvernement am yàlla dàqal ko seytaane musal ko seytaane lafal ko cat ñu fas yéene ko gunge moom monsieur le maire Mamadou Guèye ànd ak jigéenam doomam soppeem rakkam soxna Aïcha ba yàlla defal leen jàmm ñu fas yéene egg ba palais république yàlla nañ ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamaaleykum wa jërëjëf wala kayfa kaana wala mata kaan summa salaatu wa salaam ala Muhammad sayidil bashar ناصر الحق بالحق وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب المكتوم أبي العباس تاج العارفين ممد الأولياء أحمد bun Mouhamad Salim Tijani mbokk yi jotaay bi ak si na ci mottali bi dañuy bàyyi sëriñ bi mu waxtaan ak mbooloo mi sëriñ bi mu ne ñu ngi sant yàlla di ko dëppale ak xiwal yi muy ñuy xiwal sëriñ bi mu ne waaya ñu dagaan ca sant ga yàlla dolli sëriñ bi mu ne waaya nag ñu dagaan ca itam yàlla fegal ñu lépp lu jëm ci ci ñun te war ñoo lor sëriñ bi mu ne dañuy sant yàlla ñun ak nu yàlla mën a feeñee ñu ne alhamdulillah sëriñ bi mu ne nu ngay muslu ci yàlla nag ci melokaanu ku jëmul kër sëriñ bi mu ne wante sant fu mën yàlla rekk moom sëriñ bi mu ne waaya mujj gu rafet kenn mënu koo am lu mooy dangaa dellu ci sa borom sëriñ bi mu ne xam nga nag li yàq société bi lan lam dañoo xamut sunu diine waaye ku xam sa diine defar sa société sëriñ bi mu ne waaye nag mucc xiwal yal na nekk ci sunu sang ci sunu sang bi Muhammad ak i saxaabaam ak i ñu ñam sëriñ bi mu ne gannaaw bi nu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam sëriñ bi mu ne ñu ngay sant nag mbooleem jullit yi nga xam ne dañ fee daje sëriñ bi mu ne ba tey ñu ngi leen di ziyaara eɗen ɓe ciftinira ɗen ciftinira koye meɗen hun hulde allah e rewde sëriñ bi mu ne xam nga lan lay fàttali nit ñi di ko fàttali boppam mooy ragal yàlla ak topp ko ni nii puɗoran noomi ah sëriñ bi mu ne ñun ñi ko xam-xam nañ ne du nii la daan commencé de kono noon waaye nag ko njiiɗaa fof waɗi ko sababu waɗi ɗum sëriñ bi mu ne waaye lépp loo gis rek am na lu tax mu demee noona kalifa goto gonɗo ɗo e dental ene wiye ahmadou sisé sëriñ mi mu ne dafa am sëriñ mi mu ne dafa benn kilifa bu fi nekk ñu di ko wax Cerno Ahmad Sisé o immi ko Mali mu nga bàyyi ko cap Mali omo darani diine l'islam o te nag nga fa nekkal l'islam ci taxawaay bu rafet omo darani l'islam o waaye mu nga da taxawal foofa diine ji itam muy l'islam tey nag moo fa représenté lii nga xam ne mooy pulaar moo ko fa représenté ɗum noon sëriñ bi mu ne loolu nag kon firtinanen mo salminanu nduɗo ngir darde makko e l'islam mu ne kon makko e loolu moo tax nag foog ñu yëkkati kaddu nag di feeñal taxawaayam ba mu taxaw ca Mali te taxawal ko pour l'islam ko neɗɗo dariɗo toon darde tiɗ sérigne ɓe mune tanak tahawayam foofa dafde tahaway bu dëgër jinmi noon enen gonɓe ɗo fof gandiren noon sérigne ɓe mune nag mu bëgg nag ñëpp ñi fi nekk xamee ko nooni eh, alhamdulillah rabbil alamin sérigne ɓe mune waaye dañuy delloo at sant gi ci yàlla rek noon leydi men nag sunu leydi ndi fof làmmiñ bi nga xam ne moom lañuy ñuy waxee nga xam ne boo ko waxee réew mi yépp dañ koy déggandoo mu ne booba làmmiñ mooy làmmiñu wolof mooy lakk wolof sëriñ bi mu ne dafa mel ni réew mi yépp dégg nañu wolof walla boog foofi ne dana am ñu dégg wolof walla boog li ëpp ci réew mi dégg nañu ko sëriñ bi mu ne loolu kan mooy sababu mu doxalee ni mu doxalee nii tey. gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci Muhammad sallallahu alayhi sëriñ bi mu ne gannaaw sant yàlla gi nag ak julli ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam. ñu ngi siyaare ñëpp sëriñ bi mu ne ñu ngay jotal siyaara ci ñëpp. fi teew bi mu ne képp ku fi teew walla xelam nekk fi walla xelam fi doonte teewu nga doon jullit ak foo mën a ne sëriñ bi mu ne walla nga doon jullit ak fépp foo mën a nekk sëriñ bi mu ne ñu ngi lay fekk fa nga nekk ñu ziyaara la fa sëriñ bi mu ne bu loolu jàllee wéy sëriñ bi mu ne ñu ngay dollee sant yàlla bu baax ci jataay bi sëriñ bi mu ne mu ngi may wax léegi ne. waaye lu tee ñu ñaan rek Malick ñu dem. sëriñ bi mu ne ndax jataay bi dafa xaw a yàgg. waaye itam. bi mu ne waaye itam nag. yàlla nag géej bu amul tefes la. ah géej ak yàlla gi nag baxrun la saaxila la géej la goo xam ne amooy wax ni fii lay commencé wala fële lay génnee. sëriñ bi mun ne boo demee ba tabbi ca nag. moom sëriñ bi mu ne dootu la mën gis lutul moom yàlla rek sëriñ ah, bi mu ne te moom yàlla mooma mënul la fey ba dal di daj nag géejam gi moom yàlla bi mu ne bindkat ba nee na gis nga yàlla nekkam gi amul fooy mën a wax ni fii la commencé amul fooy mën a wax ni fii la jeexee sëriñ bi mu ne loolu moo tax boo duggee ci géej ak yàlla googule sëriñ bi mu ne moo tax boo ca tabbee tabbi ale nga ca ak mbaax ndax ku amul mbaax mënta tabbi ci géej ak yàlla ga sëriñ bi mën a ndax boo tàbbee ca géej ga dangay ngay mujj seey doon géej gi ci boppam te muy yàlla subhanahu wa taala sëriñ bi mu ne su boobaa soo bëgg fëll ca géej ga da ngay mujj doon géej gi waaye doon jaam boo xam ne day doon jaam bu sant yàlla ba far jeex sëriñ bi mu ne kon nag loola lu cay doy dana xaw a jafe sëriñ bi mu ne gis nga bu loolu jàllee wii seriñ bi mu ne bi ñu commencé di am jataay ak jataay yiñ masa am yépp sëriñ bi mu ne bii ni mu seddee xolam bu fekkee am na ci itam bariwul sëriñ bi mu ne lu tax boroom xam-xam yi fi jot jibal seeni kàddu sëriñ bi mu ne xam nga dañuy dollee sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne liñ fi lim ci ay professeur sëriñ bi mu ne te ñooña wax ñu dégg sëriñ bi mu ne oustaz Xasan Seck ngi noonu sëriñ bi mu ne la mu wax sëriñ bi mu ne te yow nga xam diine sëriñ bi mu ne da ngay xam ne la muy wax xam na ko de sëriñ bi mu ne gis nga mbooloo nag sëriñ bi mu ne bu ca lii nekkee rek day tënk erreur. dafay tënk erreur. muy feeñal njub rek. muy feeñal njub rek bu boobaa mbax mooy feeñ. sëriñ bi mu ne te loolu mooy njëriñ nag. sëriñ bi mu ne ñu dajee fii. ñu waxtaanee fii. loo xam ne daf nuy jëriñ. tey ak ëllëg. waay waay sëriñ bi mu ne loolu mooy waral ndaje bi di. ñu dal di tuddee nag ndaje sant yàlla. sëriñ bi mu ne gis nga ndaje sant yàlla nag. sëriñ bi mu ne mu nga dooree ñaari jullit yoo xam ne dañoo dajee ñuy nuyu wante teqale ko sëriñ bi mu ne lan la ca hadis ba teg lu mooy yàlla dana leen baxal seeni bakkaar sëriñ bi mu ne kon nag sëriñ bi mu ne ñaari nit la yonent bi waxoon waaye sëriñ bi mu ne naka téeméeri téeméer sëriñ bi mu ne kon nag sëriñ bi mu ne jotaay bi nag li ñu fi dégg suñu ko jëfee sëriñ bi mu ne day doon njëriñ su fekkee ne kay dañoo nayu wante rek teqale ko sëriñ bi mu ne njëriñ nga ca biir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari julli duñ masa daje ñu nayu wante ñu teqale ko lu mooy yàlla dana leen effacer seeni bakkaar ah sëriñ bi mu kon kay loolu am na njëriñ sëriñ bi mu ne kon nag ñu dollee te sant yàlla bu baax. sëriñ bi mu ne ñu dollee sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne gis nga jataay bi sëriñ bi mu ne jataay yu sant yàlla la jataay bi sëriñ bi mu ne jataay yu sant yàlla la sëriñ bi mu ne te li fi feeñ yëpp sëriñ bi mu ne xanaa ñu dollee ko sant yàlla sëriñ bi mu ne kon ñu ngay dollee sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne pour ñu sant nit ñi ci seeni tur sëriñ bi mu ne loolu jaadu na ndax sant képp ku xam lan la sant di taxawee sëriñ bi mu ne su boobaa yow da ngay yëg yow ci sa jëmm ji nga yëg ne yow ndeke sa jëmm ji taxaw gim taxaw sant la taxawee eh sëriñ bi mu ne kon nag waaye waaye sëriñ bi mu ne ñu ngi sant ñëpp nag sëriñ bi mu ne comme ni ñu ko waxee sëriñ bi mu ne ñu tudd ci lenn kilifa yi ñu wuutu ca ña ca des nga xam ne jotu ñoo tudd seeni tur sëriñ bi mu ne ndax nag mbir mu nekk noonu la nag sëriñ bi mu ne bu ñu demee ci jàkka ja kenn lañ fay jiital ñu dal di koy topp ñun ñëpp suñ jullee na mu jullee su boobaa su fekkee tisbaar la ñun ñëpp julli nañ fa tisbaar sëriñ bi mu ne kon nag doylu wante dafa am solo sëriñ bi mu ne tem bi nag sëriñ bi mu a thème bu am solo la mooy Sénégal ak développement sëriñ bi mu ne waaye nag sëriñ bi mu ne warta yéem ña bàyyi koo boggal thème bi mooy l'islam ak développement sëriñ bi mu ne gis nga aljuma bu ne ñi bàyyi koo boggal waru leen a yéem de sëriñ bi mu ne saa bu nu jullee ñu gunge sëriñ bi ba ca saal ba sëriñ bi mu ne léeg-léeg mu fàttali nu fàttali boppam ragal yàlla ak jaamu ko gannaaw loola mu ne ñu nañuy jàng nañ liggéey nañ jaamu yàlla te kenn bum bañ kenn sëriñ bi mu ne ku jàpp ci lii xay yow yaa ngi ci développement di wala ngi ci développement sëriñ mu ne dafa mas wax ne bu kenn bañ kenn sëriñ bi mu ne benn waay bu gàtt aliwa mu ni ko sëriñ bi yow waroo wax ne bu kenn bañ kenn. mu andi ko. mu dal di indi wax ji. diggante jullit diggante ak ku du jullit. sëriñ bi nekkoon ko gis nga bu boobaa. soo ko bañee rek soo ko bañee rek. yow da nga koo tooñ. donte ab ju du ab jullit tooñ nga ko. ndax soo ko bañee. tooñ nga ko nag. li mu nekk li mu nekk. xanaa loolu ngay bañ. yow loola ngay bañ. su boobaa nag. nga taxaw nga taxaw fële. nga taxaw nag ca la alquran ne woon dem leen ak seen diine ma dem ak sama diine sëriñ bi mu ne développement jàng la liggéey la jaamu yàlla la bu kenn bañ kenn sëriñ bi mu ne gis nga soo jàngee jàng bi moo lay xamal nooy liggéeyee moo lay xamal nooy jaamu yàlla loolu njëriñ ñil njàng moo mel noonu sëriñ mën a léegi nag soo ko defee nga nga jublu ci liggéey ndax lislaam day ànd ak def dara day yëngatu sëriñ bi mu ne kon nag mu tere la moom lislaam tooñ soo du tooñ yow doo mën a indi ci société bi boo benn problème doo leen ko indi te gis nga soo jàngee di liggéey di jaamu yàlla indiwu la benn problème bu boobaa kay yow eh yow kay indi nga développement bu rëy sëriñ bi mu ne kon nag ñu ngay ne yooyu yëpp ñu ngay nuyu waa Bogal sëriñ bi mu ne barki démb rek la fa baxoo te mu mu wax ma ne aljuma june danañu fa dajee siyaare wante bokkut ak waxtu yu juróom ya nga xam ne dañ koy tase ci jàkka ja waaye teewul te xam nañu ne événement bi gën a rëy ñu ngi ca dëgmal waaye teewul ñu def ñoom waa bëggal seen doole ak seen coono pour que fekkee si bis sëriñ mu ne kon nag ñu ngi jël sunu nuyoo di ko teg si loxo imam Saïdou Silla mu àggaleel ko ko ci waa bëggal yëpp sëriñ mu ne ginnaaw loolu nag ñu ngi nuyu borom xam-xam yi comme ni mu ko waxee sëriñ bi mu ne di dolli sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne ñu ngay di yuwit délégation bi nga xam ne sëriñ Abdul Karim Mbakke eh, semaine rek lañ fa bàyyi ko siyaare ko ànd ak taalibe yu bari sëriñ bi mu ne ñun gis nañu yëg yëg-yëg bi mu am ci sëriñ bi sëriñ bi mu ne gis nga léeg-léeg nag su ñëwee ci kër yu mel noonu teraanga bu mel noonu sëriñ bi mu day wax ne du moom dafa fekk tera teraanga ba sëriñ bi mu ne jullit ak moroom ma nag ah bindkat ba nee su fekkee ku baax daf laa ñëwal na nga ko teral fa akrimuhu sëriñ bi mu te gis nga mbaax da koy defal ku ko yeyoo ak ku ko yeyoo loolu la bi wax sëriñ bi mu soo soo tombee koo xam ne yeyoo na mbaax yow def nga mbala pala mbaax palaasam su fekkee ne nag da ngaa tombe ku yeyow hun mbaax waaye yow kon yow mii def mbaax nga doon kuy def mbaax sëriñ bi ne kon alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ mu ne ñu ngi nuyu itam Sharif Makki mii toog Makki Haydara sëriñ mu ne soo ko gisee rek foog dem ci Cerno Basiiru Taal foog sakkal dem ca njabootu Seex Umarul Futiyu Taal saa boo ko gisee rek te nga xam ko da ngay gis loolu ci moom a ah, sëriñ bi mu ne kon ñu ngi doon sant yàlla sëriñ bi mu ne ñu ngi lay nuyu Sirif Makki sëriñ bi mu ne ñu ngi lay yóbbante na yoo ca Omar Omar reen yëpp ci famille Omar reen yëpp seri bi mu ne ñu leen di ziyaare ñu ngi lay ziyaar sëriñ bi mu ne ñu ngay waxati alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi mu ne ñu ngi lay nuyoo Cheikh Baye Haadi sëriñ bi mu ne gis nañu yitte yi mu def sëriñ bi mu ne ku bàyyi ko madinatul munawar madinatul munawar ngay dawal jataay bu nekk Sénégal ah sëriñ bi mu ne kon kooka ngay dawal sëriñ bi mu ne te mu xam leen na mu leen xamee fañ bokk sëriñ bi mu ne kon xolam bi dafa fees tëpp jëmmi yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi mu ne su fekkee nag sa xol xam na lan mooy jëmm yonti yàlla muhammad te fees na ci sa xol sëriñ bi mu ne man nga ko wuutee man nga koy huut ca penku ba nga wuutee ko ca xarfu ba nga wute ko ci fu ne wallaay ndax jëmm yeneen ba mel noona sëriñ bi mu ne loolu moo tax soo bàyyi ko madinatul munawwara ñëw fii sëriñ bi mu ne loolu ñun duñu yem xam ci nga xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la moo la ko yóbboo sëriñ bi mu ne ñu ngi nuyu suñu ilimaan bi itam di ko yóbbante ci mbooleem ilimaan yi yëpp waxut sunu asalem Grand Yoff bi rek de waaye mboolem ilimaan yëpp sëriñ bi mu ne jël na nayoom teg ko ci loxoom moom imaam ndax moom la ñu délégué nuuhu ñaabali mooy imaamu raatib bu mag ba waaye ñem waaye ñoom ñëpp ci moom lañ topp sayidi ba sëriñ bi mu ne ñu ngi lay ziar sëriñ bi mu ne xanaa di doon lee sant yàlla bu baax sëriñ bi ne ñu ngi nuyu itam njëse njabootu sëriñ Bachiru Mbacke moom dafa am lu mu sedd sëriñ bi xat mu ni su jógee di siyaare ay taalibeem ca Casamance dafay sedd sëriñ bi benn guddi mu ñëw mu fanaan ak moom ca boggal ñu dal di ñaanalante sëriñ bi mu ne kon ñu dollee sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne li fi nekk ci ay député itam sëriñ mu ne xal na noo takku am na ñoo xam ne tudd nañu leen waaye am na ñooñ tudd ñu leen ci xëtaab bu njëkk ba waaye sëriñ mu ne waaye sëriñ mu ne moom jël na na yoom di ko teg ci sunu député alaaji Keeba Sawaane mooy député gox ba sëriñ ba dëkkee sëriñ bi mu ne moom alaaji Keeba nag sëriñ bi mu ñu dollee sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne bu ma bul wuutu dara mu ne booba lañ àndoon ñoom ñaar ca la commencé woon di diis sëriñ bi ay mbiram ba lii dal di xew ñu ba mu xewee it mu dugg ci yàlla dimbale ko ca alhamdulilahi rabbil alamin Pape Djibril Fall itam sëriñ bi mu ne mu ngi koy door a gis ci attu sëriñ Abdul Karim Mbakke waaye nag baayam nag ba mu ko xamee ak léegi ëpp na ñaar fukki at sëriñ mu ne mu gëjoon koo gis ba keroog bañ demee Touba te la ko gisaat mu ne ko kii nag sama dooma sëriñ bi mu ne kon ñu dollee sant yàlla bu baax sëriñ mu ne ñoom ñaar nag ñoom lay jël mu yóbbante leen ca mboolem député yu fi toog ak ñi fi nekkul ñëpp Mouhamed Diaité sëriñ moom la ñu ngi dollee sant yàlla bu baax moom itam ca sunu gox la dëkkee gis nañu taxawaayam ca wetu président de la république gis nañ taxawaayam ci sunu diiwaan yooyu foofaay moom itam ci ñu ngi ko yóbbante di ko nuyu itam sëriñ bi mu ne ñu dollee sant yàlla bu baax li ci des nag mooy Pape Ka mii jërëjëf bëggu na koo dégg nag sëriñ bi mu ne waaye dafa yéeme sëriñ bi mu ne am na lu mu wax ci oto bi sëriñ bi mu ne bi muy ñëw am na lu wax ci biir oto bi mu dal di koy wax ci Pape mii sëriñ bi mu ne waaye dafa wax ne soo gisee Pape nii nga yaakaar ne la muy def dara la cay huut lu mooy bëgg sëriñ bi rek topp sëriñ bi itam dabbu di dabbu itam maanaam lu neex sëriñ bi sëriñ bi mu ne pap kam yi ne xam na nag dara doyut sëriñ bi dara neexut sëriñ bi lu mooy am yàlla rek moo tax fu muy mën a dajalee dana ko wuutee noonu ba teg ko ci loxo sëriñ bi alhamdulilah rabbi sëriñ bi mën nañu dollee sant yàlla bu baax di bi mu mu ngay wax ñu taalibe yi di wax soppe yi di wax soppe yi wax am di jàmm yi liggéey bi lépp lu fi waay def lépp lu fi waay def pap ka wax na ko sëriñ bi léeg-léeg sax dafay indi dara dafay indi dara mu ne ko sëriñ bi moo def lii moo def lii ci mbir mi fekk na nag moom xamul ne diw mooma ñëwoon na ba ci sëriñ bi def ko kon defin wi defin la te yàlla tax defin te yàlla tax lim fi dépensé yépp giseewut ko moom sëriñ bi xëy bu muy xëy gisee wut ko xaalis bu muy naw déedéet loolu yëpp moom ak ñi mu bokk sopp sëriñ bi sëriñ bi mu ne ñooñu la ko bokkal sëriñ bi mu ne kon nag mu ngay ñaan yàlla ngëm bi nit ñi am ci moom bi nit ñi am ci moom ci diggante moom ak sëriñ bi nit ñi dañ koo gëm dañ koo wóolu loolu moo tax muy jël seen i mbir mu organiser lu toll nii nit ñi di ko def sëriñ bi mu ne kon mu ngay jaaraamal ñëpp sëriñ bi mu ne kis nga lépp loo def te yàlla tax yàlla dana la ko fay ah yàlla ko wax ci alquran loo mën a def te yàlla tax yàlla dana la ko fay loo def lu dul yàlla wallahi dafay dagg dafay tasaaroo wa maa aataytum min riban li turbu fi amwal annaas fala yarbu inda allah wa maa aataytum min zakkatin turiduna wajha allah fa ulaika humul mudaafun sëriñ bi mu ne kon moom mu rafetlu ne jotaay bi ak li ko lal yëpp sëriñ bi mu ne la ca des sax muqaddam yëpp gis nañu ko borom daayira yëpp sëriñ bi dana gis na leen sëriñ bi mu ne ñun xam nañu ne soxla bi gën a rëy bi gën a bari fere bi gën a bari coono ñu ngi koy dëgmal mooy dem boggal waaye teewul ñëpp dañoo taxaw ci lii sëriñ mu a daaw ba nuy xalaat lii waxoon na ko ne dafa jege ak siyaara bi mu ne ko sëriñ bi waaye nit ñi bëgg nañ la pap ko wax ko loolu lépp loo yëkkati rek nit ñi danañ ci ànd kon nag sëriñ bi mu ne ñu ñaanal ko yalla dimbale ko bu mu dara lu mooy loo xam ne yàlla gërëm na ko yonent yàlla Muhammad gërëm na ko sëriñ bi mu ne yàlla na ko yàlla def sëriñ bi mu ne alhamdulillahi rabbil alamin sëriñ bi mu ne bu loolu jàllee wii sëriñ bi mu ne nañ wax ci sunu diine gi ak suñu réew mi ak sunu réew mi sëriñ bi mu ne doonu toon sax suma aada aadaam dugal suma lamme dugal lamme ñam ci mbirum réew ci mbirum réew mi lim ciy dugalee lamme ñam rek mooy fi ñu nekk fi ñu ne député yi bu ñëwee di wut réew mi di wut gox bi mu seet kum yaakaar ni fu su amee dana taxawu gox booba yépp gox ba ma ne sëriñ bi mu ne mu dal di jël kartaam jox ko ndax su boobaa jàpp na ni kii mën nañu taxaw mën nañoo taxawu fee foo xam ne suñu làmmiñ àggu fa moom mu mën ñu faa taxawal foofa sëñ bi mu ne waaye gis nañu nag mbir mi ni mu mujj mel sëriñ bi mu ne ñu ngay ñaan rek député yi waaye na ngeen góorgóorlu sëriñ bi ne na ngeen góorgóorlu li taxoon ñu sànni leen suñuy karta pour que ñu nekk ca loola rek sëriñ bi mu ne ñun dey am nañ suñuy bët ñu ngay gis am nañ suñuy xel ñu ngi analyse am nañ suñuy nopp ñu ngiy tekki itam sëriñ bi mu ne te loolu du moom rek yàlla dimbale na keneen yàlla dimbale na sénégalais yi ñépp noonu la ñu amee sëriñ mu ne kon nañu góorgóorlu taxawu réew mi ndax fi mu ne nii mu nekk nii. comme que dañu wax ne dañoo wax ne. ñoom ñooy woote luwa ñoom ñooy woote luwa bi. ñoom ñooy ñoo ñoo mooy ndaw ndaw. ñoom ñooy ndawal. suñu ndaw suñuy ndaw ca. ci assemblée ca assemblée ba. ci waay waay kon góorgóorlu leen ci. sëriñ bi mu ne su boobaa. fitna it fitna it ñu dal di koy wàññi. sëriñ bi mu ne gis nga fitna nag moom sañ naa wax ne kenn bëggut fitna ndax dafa amul njëriñ waaye teewul da ngay toll foo xam ne. doo xam nooy def waaye yow dellul ci sa gëm yàlla ndax bu doonul loolu xam nga assemblée ñëpp ñoo koy seetaan addina bi yëpp a koy seetaan xale yu ndaw ya dañ koy seetaan de ñoom la ñuy séentu ne ñooy war a yore réew mi ëllëg su fekkee ne nag ñoom li ñuy dégg la ñuy gis awul yoon noonu la ko war a tuddee di dafay mitti nag sëñ mi mu ne kon nag waaye nañ góorgóorlu ñun dañ leen koo ñaan alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi mu ne gannaaw loolu nag sëriñ bi mu ne ñu dollee sant yàlla bu baax suñu diine ci sëriñ bi mu ne ko amul ngëm yàlla sëriñ bi mu ne doo mën a jaamu yàlla ba yàlla nangul la ko sëriñ mi mu ne ko amul gëm yàlla sëriñ mu ne lan mooy gëm yàlla ma sëriñ bi duy gëm yàlla sëriñ bi mu ne am na nu ko gaa yi di firee di ko tasaare sëriñ bi mu ne démb rek sëriñ bi mu ne mu ngay déglu ci sunu imam ba ca xutba ba ca asalem mooy na nga jaamu yàlla ba mel ni dangaa janoo ak moom waaye soo amul maqaamam janoog moom waaye jàppal ne kon moom mu ngi janoo ak yow sëriñ bi mu ne gis nga képp kuy jaamoo nii yàlla ak màggaay ak yàlla gi dootu lu fi gis dara lu ma yàlla rek sëriñ bi mu ne benn la sëriñ bi mu ne nga nekk ku xam yàlla nga xam lan mooy jëmm yàlla gi kon da ngay mën a xam ne yow yaa ngi janoo moom wala boog nga dal di tënku ca sariya nga xam ne boog yàlla moom mu ngi lay gis boog kon boo nekkee ci diggante bi doo jub ankay soo nekkee ci diggante bi doo moytu tooñ ankay soo nekkee ci diggante boobu le doo jaamu yàlla ankay wallahi da nga koy jaamu te loolu mooy rafetal sëriñ bi mu ne kon ñu dollee sant yàlla bu baax sëriñ bi mu ne léeg-léeg mu wax lu ne jafe-jafe bi yëpp lanu yonent bi indil loola la ñu sàggane wallaay sunu diina ji la ñu sàggane sëriñ mu ne loolu rek la waaye ku jàpp diinaam balaa nga koy jàpp nag balaa nga koo jàpp nag da nga koy jàng nag nga xam lan la laaj soo xamee lam laaj nga tënku ca soo ca tënkoo alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ mu ne ti Sénégal gii nag mag ñi liñ fi def waruñ koo sàgganee sëriñ bi mu ne luñ fi def sax wax ñu dañ ñoo wax ne dañ ñu waxal ne alquran ak sunna loolu lañ fi def ci loolu lañ leeral de waaye daa mel ni ña leen toppoon ñoo leen gënoon a déggal niki ñun ndax ba tey ñi koy wax ñu ngi fii waaye léeg-léeg léeg-léeg mu am ku ko wax mel ni sëriñ bi ah wax ca te bokkul la ca su boobaa lay déglu duñ la déggal sëriñ bi mu ne loolu taalibe yi bi yëpp ak sëriñ ci yëpp sëriñ bi mu ne waay waay nañ góorgóorlu alquran ne nañu woon ma yow dangay digle mbaax fàtte sa bopp waay waay sëriñ bi mu ne ataamuruuna naasa bil birri wa tansawna anfusakum sëriñ bi mu ne jataay bi sax yàgg na waaye nag sëriñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi mu ne jataayu sant yàlla la sëriñ bi mu ne ñu ngi siyaare ñëpp nag sëriñ bi ne ñu ngi siyaare ñëpp sëriñ bi mu ne ñu ngi siyaare alaaji Ahmed Niass su fi nekkee ak su fi nekkul ndax su fi nekkul it mu ngi fi jataay bu mu am moom sëriñ moom ak moom la alhamdulilahi rabbil alamin Fatou Nouroulahi ak président Mamadou Lamine Sané waaw sëriñ bi mu ne gannaaw loolu nag sëriñ bi mu ne ñu ngi fàttaliku sunu benn kilifa sëriñ bi mu ne da koy wax rek mu dugg ci mu dugg ci nopp nit ñi képp kum dugg noppam jàpp na ne dana doon yërmande te kooku mu war a tudd mooy sunu benn kilifa bu ñuy wax alaaji Ousmane Diallo yàlla dafa dogal mu dem ca boroomam sëriñ bi bu ne ñaari semaine ci gannaaw ñaari semaine yi sax mu ngi manqué tuuti sëriñ bi bu ne nitu yàlla la woon nit ku baax la woon dafa nekk ca gox ba mu nekk mu nekk sëriñ bi sëriñ bi nekk ca gox ba mu ne sëriñ bi mu ne ñoom ñaar ñu ngay dimbalante ci lislaam ñu ngay dimbalante ca mbokk go ñu ngay dimbalante can meen ma sëriñ bi mu ne yàlla dafa dogal nag mu dellu ca boroomam sëriñ bi mu ne muy sakku ci ñun ñëpp ku fi ne rek na xolam wax ne yàlla na yàlla yërëm ko yàlla teg loxo ca njabootam ak mbooloo mi jullit ñëpp sëriñ bi mu ne alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ñu nangu ñaan bi sharii karamillah bi xaasati juudillah daxalna fi kanafillah wa tamassakna bi kitabillah واستذرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بدوام ملك الله ببقاء ملك الله حكمنا أنفسنا بهجاب الله ومنعناها بآيات الله وحصلناها بالآيات وذكر الحكيم بحق من يحيي الإذام وهي رميم جبريل عن يميننا وأسرافيل من خلفنا وميكائيل عن يسارنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمامنا اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شأتنا وتصلح بها شأننا وتحفظ بها غائبنا وتزكي بها أملنا وتلحمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتأثمنا بها من كل سوء اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة تقنينا بها عن رحمة من سواك allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bidaatika an masiyatika واكفنا بفضلك وجودك وكرمك أمن سواك اللهم إنك تعلم سرنا وألانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأعدنا سؤالنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا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 allahuma aqsim lana min xasiyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna maashika wa min daatika ma tuballiquna bihi jannataka wa min alyaqini ma tuhawwinu bihi alayna masaiba dunya wa mattina allahum bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء wa anta alzahiru fa laysa fawqaka shay wa anta albaadinu fa laysa dunaka shay fa kun lana ya awalu ya akhiru ya zahiru ya batinu waliyan wa nasiran anta mawlana fa nima almawla wa nima alnasir innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun